nañ ko euh, l'ancien euh, chef de l'État est-ce que euh, suñu diplomatie war na toll fii. avant ñuy ñëw ci li ñu il faut ñu wax ci li ndaw si def fekk ku ñuy wax Macky Sall ànd ak soxnaam bu tudd Marème Faye Sall nga bokk ñoom avion Royal Air Maroc ñoo amoon lenn looy def lu fekk mu toog ak soxnaam nga ne ko yow lu tax nga tey sunu doom yi kon dëgg yàlla loolu moom du loo xam ne war na ko def c'est à dénoncer et à condamner attitude c'est pas une attitude boo xam ne war nañ ko encourager war waruñu ko encourager quel que soit le crimes supposés que Macky Sall a commis supposé laa wax de quel que soit les délits supposés qu'il a commis quel que soit le traitement bi mu infliger à des citoyens mais la justice n'a encore rien dit sur lui il n'a pas été impliqué kenn wax ko dara donc te ensuite c'est un ancien chef de l'État à qui on doit déférence et considération parce bu doon loolu rek ah fu mu tourné ñu ko mere saaga ko wala ñu song ko donc ne serait-ce que pour ça on lui doit am na njariñ seen deful lépp lu bon am na lu baax lu mu fi def donc kooku am nañu cër léegi nag par rapport à la réaction de la dame loolu moom wax dëgg yàlla loolu moom tegu ko fenn. la réaction des autorités tooñ la léegi réaction des autorités. autorités yi ñoom wane nañ ne il venait en assistance à une dame en détresse dans un autre mais ils ont oublié quand même que c'est une affaire en deux Sénégalais te Macky aussi n'est pas n'importe qui quelle que soit la situation même s'il est redevenu un citoyen ordinaire entre guillemets il n'est pas n'importe qui léegi nag te li ci gën a doy mooy il y a des relents yu wane ne que la dame et de Pastef léegi nag si on on agit parce que la dame est de Pastef ce serait extrêmement grave mm -hmm. dire que on est en train de trouver des situations des des, des citoyens qui sont en en dessus de tout le monde parce que activisme bi ma gis. Mhm. ak li ñu daje lépp jox ay instructions not ambassadeur à notre consul. waa dëgg yàlla loolu moom ministre bi am na yeneen yu mu war a régler te Sénégal sont en train d'être en Turquie mais tu ne l'entends pas ak combien de Sénégalais dans le monde fi mu toll nii ñu nekk ci ay jafe-jafe mais ana ñu ñoom donc yooyu moo ëpp priorité mais dugg ci benn détail boo xam ne c'est un problème privé ndaw si ñoo fekk suñu ancien président mu koy toroxal. wax dëgg yàlla excuse-moi balaa nga intervenir si on admet que ce que la dame a fait. dañ ko war a tàcc. kon il doit être correct qu'aujourd'hui nga xëy nga dem kër Macky Sall fii Mermoz nga bàyyi ba mu ñëw. nga taxaw si buntu kër di saaga. c'est un précédent dangereux. Mm, parce que lii ku ko yaa ngi. encouragé le peuple et puis ce pays là dañu war a revenir à des valeurs. Ah, orma sutura kersa yooyu dañ ko war a dañ ko a dëggalaat fii ci réew mi euh, lu neex waaye def rek ñu lay encouragé ce qui s'est passé entre euh, Mariama Camara ak le président Macky est-ce que dina la bett quand on voit le traitement bi nga xamante ni moom la le pouvoir euh, am ak diggante Macky Sall parce que Macky Sall il nous dit que ni privilège yu chef d'état war a am daanaka moom sax joxuñ ko ko est-ce que du ñoom ñoo tijji bunt boobu pourtant il y a le décret du janvier 2013 koy jox yenn privilège yoo xamante ni ba tax garde corps sax si la bokkoon xam nga mbir mi kay ñaar kese la <laughs> da ngay wax dëgg wala nga wax leneen lu dul dëgg. Mm-hmm. <laughs> c'est simple. Euh, euh, c'est une dame euh, qui est mal élevée ku ñu yarul. Mm-hmm. à l'image de beaucoup de choses de beaucoup de jeunes ou de beaucoup de sénégalais mm-hmm. aujourd'hui depuis quelques trois quatre cinq ans ci ginnaaw yu am ce même comportement là et cette dame là elle a été assistée elle a été ndaw si dañ ko dañ ko jàppale te ni ko jàppale la différence xam nga mooy lan mooy y a deux y a deux sénégalais qui est patriote et il y a un autre patriote entre guillemets et un autre sénégalais qui est un simple sénégalais lambda comme Assane comme man on peut supposer wala wala wala wala wala wala wala wala Georges Déthié voilà c'est tout léegi nag mbir mi lenn la mooy ce cette dame là xam nga lu gën a doy waar mooy dafa am koo xam ne day gérer ministère des de l'intégration et des affaires étrangères Yacine Fall Yacine Fall est patriote sénégalaise et qui a voulu aider euh, nitam une autre patriote sénégalaise contre un autre sénégalais lambda parce que Sénégal ñaari sénégalais ak wala ay sénégalaises xuloo nañu bitim réew ba sonn ñu koy coow di ko bind ci ay journaux ministère de de de des affaires étrangères et de l'intégration musul dugg ci yi demee nii sauf dans des situations exceptionnelles où c'est un sénégalais avec un autre étranger dans un pays étranger xam nga lan la. Euh, dañ ko soutenir parce que faale wuñu Macky Sall ancien président de la République parce que communiqué boobu lan la waroon def mooy dañu waroon déplorer ñoom ki nga xam ne ñoom président Bassirou Diomaye Faye moom la wutu te ñoom ñu ànd ak président Bassirou Diomaye Faye nekk ci gouvernement dañu waroon dañu waroon def un communiqué naqarlu jëfin bu ñaaw boobee. ba pare bàyyi euh, euh, force de l'ordre marocain yi ñu def seen liggéey parce que ñoom defuñu ko parce que Macky Sall la wala parce que Sénégal la dañ ko def parce ci seen réew dafa am ñaari nit ñu jote ñu euh, mu am koo xam ne dafa am ay attitude agressive vis-à-vis d'une autre personne mhm. yàlla def ni ñoom ñaan ñëpp ay sénégalais lañu et que ça fait que ni effectivement ils ont vu que cette dame là a un comportement assez dangereux ñu ne kii warul toog ci avion bi dañ koy yóbbu fii mbaxane doonee benn mhm. lu moo tax ñu génnee ndaw si bokkul ci parce que avion boo ci nekkee kii troublé avion kooku la ñuy génne léegi nag ñaar la ou dañu faral Macky Sall et que Macky Sall ak Mariam Faye ñoom ñoo tooñ et ndaw si lañ ko tooñ ou alors c'est le contraire mais apparemment selon li ñu dégg ak li ñu xam mooy ndaw si moo ñëw fekk si ko mais yaa xayti mun nga bañ a d'accord ak nit waaye nga ñëw fekk ko ba ci biir avion bi xool ko ba mu neex la bu la neexee nga béggee ko bu xam ne na ma ne ñu ngi ci biir avion bi béggee ñu Macky Sall waaye pourquoi moom mu ñeme jóg taxaw am fit naan ko yow yaa lu tax ngay rey suñu ay ay quatre-vingt quatre-vingt sénégalais alors que amu ci dara lu ko leer mais fan la ñu teg wax boobu te da ngay gis ni wax boobu. ñi nga xam ne ñooy ay patron moom nekk ay patriote entre guillemets parce que man je pars du principe que la patriote la mais patriote simple sans guillemets rien du tout yaa ngi dégg donc ay patriote du Pastef ñoom dañu ñëw jàppale ndaw soosu parce que tout simplement ils ont pensé que ni ndaw soosu li mu def dëgg la approuvé nañ ko mais bu fekkee ne mënuñu ko wax ci kaw ils l'ont approuvé parce que bu ñu ko approuvé woon du ñu def un communiqué pour demander ambassadeur u Sénégal bi nekk Rabat pour mu dem jàppale ndaw soosu parce que mais wax coow googu yàgg na fi bari dafa sax ruslu c'est une honte au-delà du fait que sax Macky Sall nekk ancien président de la ak nu mu mu demee ñu ngi ko war a jox war war maam bu doon yow Assane xëy na sax ce serait un peu différent parce que tu n'es pas que Séné tu es que sénégalais comme man. waaye kële dafa nekk un ancien président de la République mu am yoo xam ne daf ko dañ ko ko woddee. Mhm. ñu war ko ko euh, sàmmal waaye ñu ne ñoom loolu duñ ko def ils ont préféré aller euh, sauver cette dame là. alors que sauver bi sax mënul uh-huh. woon yoon. li ñu waroon def mooy bàyyi ndaw soosu bu fekkee ne wóolu nañu justice marocaine ñu mu def li mu war a def ñu xam kan moo tooñ te loolu nag dama gis ni. bettul kenn parce que loolu dafa am ci réew mi loolu dafa am ci réew mi ñii di saaga ay ancien président yeeg yooyu di leen tam dëmm ak kenn xamul mm-hmm. mais l'actuel président de la république euh, Bassirou Diomaye Faye bindu fi ne pratiquement saaga Macky Sall bi mu nekk dans l'opposition ba taxoon ñu téye ko wax yu ñaaw yooyu mais wax yooyu façon yooyu moo nekk ci bopp ñenn ñi ñenn Sénégal yi nga xam ne du ñu réfléchir moo tax bu ñu toogee jàkkaarloog ku mel ni comme un ancien président de la République ñemee di ko wax yenn yi na kon lii yëpp du ci am mais nag lii firnde lépp <coughs> mooy vous êtes des patriotes entre guillemets eh ben je vous eh ben je vous je vous je vous protège tout simplement. et puis tant pis pour les alors euh, il est moins quatre donc l'heure euh, du journal euh, approche ak euh, suñu page publicitaire yi di leen fàttali ni euh, match Sénégal Malawi mi ngi am jamono ji ñuy waxtaan fële ci stade maître Abdoulaye Wade 33e minute la Pape Gueye dugal Sénégal am na benn bal ci dara ci kanam ak Malawi ñetteelu journée ci éliminatoire CAN 2025 première premier match bu l'entraîneur Pape Thiaw di leen jaajëfal si teewlu bi jaajëfal Aliou Sow Georges Nesta Diop euh, Mademba Ramata Dia euh, Mami euh, Kanté si caméra yi ñu ànd si woon nag Barka si Diop si régie bi bàyyi nag suñuy programme le journal de 20 heures dans 3 minutes avec Issa